rabbi auzu bika min hamazati shayatin wa auzu bika rabbi an yahdurun assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk jullit yi di ñaan suñu boom defal leen jàmm ak tawféex di siyaay mbokk yi nga xam te ni dañuy faral di teewlu jotaay bi yëpp di ñaan suñu boom defal leen yiw bu matale ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni comme niñ ko baaxoo defee sunu jotaayu yóbbulu ndaw ñi ci téere bi ñuy wax tasawwadu saxaar bu Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul mu mel ni jotoon nañ cee jël ay bind yu njëkk yu bari mu mel ni ñu ngi tolloon ci bunt bi muy jàngalee xaaju diine yi ak bunt bi muy jàngalee tawxiid mel ni sunu jotaay bu mujj tàmbali woon nañu ba wax ne gëm yàlla bokk na ci nga gëm na yàlla lu am la gëm na yàlla moo jiitu lépp te amul fenn fu mu tàmbalee waaye amul fenn fu mu te muy mujj lépp waaye ku wuute ak mbindeef yi yépp la te ku doyloo boppam la mu nekkoon wa zuxinan bi nafsihi lii jamaa kon ñi nga war tàmbalee tey fii bismillah mu ne ma wa te kenn la moom yàlla maa in lahu déet ko ñaal min saanin ci ñaareel walam yasal taru dëñ jalla màggam nga asima saani di aji màgg mbir di saati jëmmum wal wasfi ak ay melom wabil wabil fixali ak ay jëfam maha mboolem seen tafarrada wéet na alfardu wéetaayu allazi ba nga xam ne xamaha not na lii ñeel ma kon mu ne yàlla tamit kenn la amut am ñaareel de yàlla moom dong kenn la comme ni mu ko waxee ci xulxu wallahu ahad yàlla kon kenn rek la amut ñaar mu ne nag ci kennam googee ci jëmmam ak ci ay meloom ak ci ay jëfam yépp kenn kum ci kum wala kenn ku muy ci ay meloom ak ci ay jëfam ak wéet ba mu wéet jëm boppam waaye wiitaay boobu mu wéet nag sëriñ bi dafa daanelee bayit bi daan xamaa xamaha lii wiitaay boobee suñu boobu wéet ci jëmmam ak ci meloom ak lépp nga xam ne moom rekk la ci la ko suñu boroom notalee noonam yépp moom sëriñ bi mu ne maa in lahu déddi ko ñeel moom yàlla ba tey fi saati ci jëmmam wal fi ak ay meloom wa fi afhaali yi ak ay jëfam saanin ñaar waaye safi dina tànn man saa ko soob mu waxaat ba tey nag li mu waxoon rek la la mel ni da koo indiwaat indiwaat gi nag mooy wane ne li mu wax kat daf koy dëggal wane ne yàlla kat jëmmam ak meloom ak ay jëfam lépp amu ci am ñaareel amul kenn ku koy nuróol wala dara déedéet def cee wéet moom yàlla moo tax mu indiwaat ko foofu waaye nag waye safi nataan man saa ko soob nag dafay wane na suñu mooy def lu ko neex mooy tànn xeet wu nekk moo cay tànn ñaka neex mu def leen ñu gën wala ci jamono ju nekk ci lu mel ni boo ko xool ci bis yi ni nga xamee noon la tànn tànnee bisu aljumaa mu gën ci bis yi bu dee ci weer yi ñi nga xam ne noonu la tànn tànnee tey weeru koor comme noonu nag ci lay tànnee tamit ci nit ñi ñi nga xam ne noonu la tànnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu gën ci lépp lu mu bind mu ne wal wa xudratun ak kàttan maa iraadati ànd ak nammeel lahu ñeel na ko moom yàlla wajabataa war na wala saxal na ux bu danhu ñu jaamu ko wala tujjil lahu te ñu màggal ko mu nekkat kat yàlla kat na nga xam ne tamit boroom kàttan la waaye yàlla teg na nga xam ne it boroom nammeel la kàttanam gi mu am kàttan googu mooy kàttan gi nga xamee ne lépp lu mu bëgg def ci la koy defee amut lenn lenn lu ko të walla lenn lu muy am xel ñaar ci kàttanam boobu nameel tamit mooy lépp lu mu bëgg mu def def ko na mu ko bëggee amul naan yàlla kat lii moo tax mu def lii walla lii kat daf ko bett wala dara déedéet lépp lu am rek ci ak nameelam la la ko ameele amut lenn leen luy am lu xam da koy bett wala leen loo xam ne dafa koy am rëcc ko wala dara déedéet lépp lu mu am rek ci am ak nammeelam la kon nag jaamu yàlla saxal di ko jaamu ak di ko màggal lu war ne xel mun xam-xam ayaatun ak dund maa sam'i ànd ak dégg waa basar ak gis maa kalaamin ànd ak wax wa jabat war na di seen basar ñeer borom mbindéef yi wa kaw nu rabbi naa nekk borom bi ala kawe na xaadiraa di aji kattan xayra murid yi gën di nameel laa yazaaru déet muy dañ saakira di sant mu ne kat yàlla tamit ilmun ku am xa aji xam la ilmun aji xam na xayaatun aj dund la aji dégg la aji gis la aji wax la tamit mu ne yooyu yëpp nag sax na ci suñu borom mooy xam-xam ba yell ci moom nga xam ne lépp daf koy xam nam amee la koy xamee dund gi nga xamante ni moo yàlla ci moom mooy dund goo xam ne amul fenn fu mu tàmbalee amul fenn fu mu yem ak dégg ga nga xamante ni lépp dégg ga yàlla ci moom ak gis ga yàlla ci moom ak wax ja yàlla ci moom lépp ñaan la suñu borom moom mi nga xamante ni mooy aji kawe ji waaye nag moom mooy aji am kàttan mooy aji am nammeel mu ne waxaali man ak aji xam ayyan di aji dund samian di aji dégg wa haba maye na wa kawnuhu akum nekkam xayra basirin gën di aji gis wajaba war na wa mutakalliman muy aji wax hadaaka yàlla na la jubal allahu yàlla bi ni laa ilaha illa ci baatub laa ilaha illa kon nag mu ne sangam ay melo la la waxoon daf laa waxoon ay melo ndaxte buñ nee xam-xam rek teg nee xam-xam kon xam-xam rek lay tudd waaye nag buñ jëlee xam-xam dugal ko ci biir jëmm kon jëmm ja aji xam lay tudd kon noonu la moo taxoon mu indi dafa indi melo yi daal di indi juróom-ñaari melo la indi daal di indi nag juróom-ñaar yoo xam ni melo yooye dafa sax ci jëmm ji mu koy dugal mooy suñu borom. kon nag mu nekk juróom-ñaari melo mu dugal ko ci juróom-ñaari yoo xamante ni ci jëmmi suñu borom gi la kon day nekk mi ngi mel ni nga ne xam daal di wax ne nit kii kat aje am xam la ndax boo nee xam rek da jël xam ko boo nee dund da jël dund ko boo nee gis da jël gis teg fee boo nee dégg da jël dégg teg fee waaye nag loolu lépp nag boo ko jëlee def ko ci nit nag day wan ne nit ki aji gis la wala nit ki aji xam la nit ki aji dund la kon loolu la noonu la noonu la ko indee kon. kon juróom-ñaar yi mu ko mooy melo yi juróom-ñaar yi nag mooy melo yi bu ñu ko dugalee ci jëmm ji nag mu nekk aj mu nekk loolee mu nekk melo yooyee tax mu wax la ne la man aji xam ayan aji dund samihan aji dégg waxa baa may na wa kaw nu ak nekkam xayra basiir mooy gën di aji gis kon loolu dafay wane ne melo yooyu mu la waxoon yëpp nag mi ci ci jëmmi suñu borom bi benn mënu cee ñàkk mu daal di lay jeexalee bayit bi daal di wax nekkat yow mi nga xam ne da toll fii képp koo xam da ngay jàng téere ba toll fii rek mel na ni sëriñ bi yow la ñaanal daan ne yàlla na la yàlla gindi te jubal la ci bi yum ni laa ilaha illallah ci baatub laa ilaha illallah kon dafa ñaan daf laa ñaanal suñu boom jubal la ci baatub laa ilaha illallah képp koo xam da ngay déglu wala ngay jàng téere ba yegsi rek ñaan gi yaa ko moom yàlla nañ ko suñu moom defal ñun ñëpp ci barke bi yonent bi sallallahu nag lii mooy ñaar fukki melo nga xam ni moo njëkk ci suñu borom nga xam ne benn mënu cee ñàkk ci suñu borom benn boo ci saxal ne amul ci suñu borom rek kon dafay mel ni da ngay matuk suñu borom gi da nga koo wàññi kon nag mooy ñaar fukki yi ñu la ñu doon lim kon ñaar fukki yooyu fii la yem léegi day indiwaat yeneen ñaar fukki yoo xam te ni mënta am ci suñu borom xam nga wax na la ñaar fukki yim la yim la doon limal mooy ñaar fukki yi nga xam te ni dafa war a am ci suñu borom léegi daf lay limal yeneen ñaar fukki yoo xam te ni danaa la ñaar fukki yi kat waruta am ci suñu borom kon nag dañuy yemale fii kàddu yi ba beneen jamono incha allah ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di xamal ñëpp mbokk mi doon def lii rek lépp loo xam xamante ni ak juumte la rek nañ xam ne ci boppam la lu ci jub rek ci yàlla suñu borom la subhanahu wa ta'ala moom nga xam te ni mooy aji atam lépp mooy aji nangu lépp mooy aji dogal lépp in uridu ila al islam ma stata'tu ma tawfiqi illa billah wa salaamu alaykum wa rahmatullah sëriñ bi doon sëkk te ak ëllëg kon nag nañ ko fa yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal